waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah euh, Pape Momar Ngom euh, maire commune de Ngogom si arrondissement Lambaye département de Bambey. benn information yi nga mën a jox gannaaw ba nga yëgee di lakk bi. waa d'abord dañuy sant suñu borom bu baax a baax si lii nga xam ne ndogalam la moo ko jël teg ko ay jaamam te. gëm yàlla moom nangu dogal daf si bokk si ponk gëm yàlla yi te comme ñun ay jullit lañ lii nii mu métti mu tiis dañ koy nangu eh, ndax dañoo gëm suñu borom suñu borom moo ñu ko teg eh, di ko santaat tamit si eh, lii nga xam ne xew na mu mënoon gën a métti ndax mënoon nañu nekk fii di wax di compter ay ñu fi faatu wala di compter ñi nga xam ne dañ fi dañu fi blessé wante loolu lépp amu fi. ay déga matériels la lañ wax ñun biñ ko yëgee fekk ñu ngi dakaar dañoo bàyyi suñu yitte daw si ñëw ndax suñuy njaboot rek ñoo fi nekk parce que ñi fi nekk mun naa ne quatre vingt pour cent yëpp euh, suñu diggante suñu commune sama commune lañu nekk ak commune Cheikh Ndiaye bi ngeen doon interview sànq kon lii nga xam ne dal na leen suñu ñun la dal moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw bokk ak ñoom tiis di leen masaw bu baax a baax a baax a baax euh, si lii nga xam ne métti na trop parce que li fi yàqu xam naa ne mënuñu ko xayma wante ay milliards la ay milliards la ndax fii ay daankatu doole daankatu doole yu am solo ñoo fi nekkoon nga xam ne liggéey lañu xam liggéey jaamu yàlla fii boo gisee ñu nekk fi ñoom ñoo yoru yor économie Dakar yor économie Sénégal ndax seeni liggéey yemul kese fii ay kilifa yu bëri ay structure yu mag a mag a mag a mag dañuy liggéey ak ñoom kon lii dal leen ñu ngi leen si maso bu baax a baax wante xam nañ ne ñu gëm yàlla lañ ndax maa ngi koy wax léegi dama romb gis li muy métti métti métti ko gis kanamam ay reetaan ngay gis ñu ngi muñ donc ñu gëm yàlla lañ ñu ngi leen di ñu ngi leen koy ñu ngi leen si ndokkeel bu baax a baax a baax di leen ñaanal suñu borom lii nga xam ne ñàkk nañ ko mu soppel leen ko wante nag dafa nekk li nga xam ne jar na ñu xoolaat ko bu baax a baax ndax pàq yi laq yi bëri na lakk yi bëri na lool te jaadu nañu xool nag wut ay solution yi nga xam ne ay solution yu durable lay nekk pour ñi nga xam ne seen bërëbu liggéeykaay nga xam ne eh, ñi ngeen gis ñii ne wante ñi nekk seen ginnaaw ñoo ëpp fuuf ay milliers de milliers de personnes xale góor ak jigéen ñoo fi daan seen doole li nga xam ne mooy seen outil de travail war nañu nguur gi war na xool nan lañ leen ko mun a sàmmal sàmmal ba mu gën a baax ba mu gën a ñoŋ gën a am sécurité pour ñoom sécurité seen bien mais aussi sécurité nit ñi fi nekk loolu moom yaakaar naa lii nga xam ne am na fi incha allah rabi dinañ si dinañ si gën a taxaw et déclic lay nekk moo xam ne dinañ mën a tegaat yeneen waxtaan yeneen négociation ñoom dinañ leen mën a gën a jàppale gën leen sécuriser pour nga seen bërëbu liggéeykaay bi mën a mën a ñoŋ mën a mën a am sécurité loolu daal moom mooy li nga xam ne moom lañ ñëwoon tax bu témoigner leen suñu suñu suñu solidarité wax leen ne ñoo bokk mbir mi wax leen aussi taxaw nañ seen wet pour ñu jàppale leen pour mbir mi gën a mën a seen bërëbu liggéeykaay gën a mën a jaar yoon loolu daal moom moo doon suñu tànk fii xam naa ne évaluation moom mënaguñ ko def ndax mbir mi léegi la pareegul sax xam naa bu weesoo ñi nga xam ne ñoo ŋànk euh, fii dinañ def seen évaluation xam lan lañ fi ñàkk xam aussi nan lañ mën a taxawee si wàllu assurance yu demee noonu daal li nga xam ne daal moom mu ne moo leen mën a euh, euh, dimbali bu xam ne li ñu ñàkk ñu mën a fexe lan lañ si mën a jot loolu xam naa bu yi weesoo rek incha allah rabbi dinañ si dinañ si taxaw. est waaw loolu moom suñu jataay bii rek mooy premier pas bi wan leen lii leen dal ñoo ko bokk deuxième pas bi moom mooy xool ñu nan lañ mën a taxawee seen wet te loolu du fi jóg tant que ñi ngi fi ñun ñu ngi taxaw seen wet pour jàppale leen pour ñu mën a suqali ko waat pour mën a redémarrer waat. loolu moom nañ jàpp commune bi nga xam ne tant soit peu ak doole nu mu munti toll dinañ si taxaw ñu si mën wante bu loolu weesoo am na ay solution durable yi nga xam ne solution yu gën a dëgër la gën a yàgg lay nekk loolu dinañ si liggéey bu baax a baax a baax pour que xale yi am ay activité yi nga xam ne dina leen permettre ñu mën a nekk si liggéey yu gën a gën a wóor gën a fiable incha allah rabi loolu bokk na ñun suñ ñun en tant que maire de Ngogom bokk na si li nga xam ne mooy suñu programme bi moom lañ bëgg a teg pour xale yi xale yi xale dëkk Lambaye de façon générale mais de Bawol Bawol yëpp de façon plus générale loolu daal moom nañ jàpp ne ñun ñi ngi seen wet si kanam ba si ëllëg pour jàppale leen.